jërë ngeen jëf ami internet Dakar live diwaanu Kaolack nangaan foofee ab accident moo fa am tey ci dimanche bi accident bu méttee méttee euh, ci yoon bi nga xam ne moo jàkkaarloog euh, Kër de Ville jëm Ndakaaru Ndiaye wala génn fi nga xam ne mooy garas Dakar euh, ca station bi nga xam ne moo fegg ak li nga xam ne moo nekk Kër de Ville foofee ca diggu Kaolack ca xolu Kaolack nangaan ab camion Mali moo jugee fi nga xam ne moo nekk diwaanu Kaffrine wala diwaanu fi nga xam ne moo nekk Kahone jubali Dakar d'après les informations moom nag moo dal ci taxi ba ngeen gisee sax image yi moom dafa dal ci kaw taxi bi yéeg ci kawam nappaaje ko

noonu ñeent doomi aadama ñoo si ñàkk seen bakkan foofee ca Kaolack ci accident bi am euh, métti na trop ginnaaw ab taxi bi nga xam ne ab camion Mali moo yëg ci kawam nappaaje ko nappaaje bu métti ñu ngi ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan yàlla leen yàlla xare àjjana fi daw si dee doon seen noflaay euh, métti na trop mbokk yi ngeen jëf fii ci Dakar Live TV way leen di abonné fii rek la amul feneen jërë ngeen jëf